la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dañoo santaane surne sikrullah boo xamante ne sëñ Muntaxa mi ngi koy def loo suñ njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ñu war koo def ci diirub àllarba ca quatre heures ba arxames ci quatre heures loola di liggéey boo xamante ne liggéeyal yàlla tudd ndax sikrulaa mooy tudd yàlla loola nag bu ko sëñ Muntaxa yëkkatiyee ne nu tàmbali bi de dama bëgg ngeen waajalal ma ñooñu di ñëw ay teraanga yoo xamante ne di ngeen ci def seen kem kàttan loolu dañu ci am mbégte am ci cant amaat ci xol bu sedd guy suñ diggante ak moom ndax sëñ Muntaxa boole nañu ci boppam noo xamante ne lu mu yëkkati lu nekk bu nu ci nee bisimilah noonu du nu ko gëme dañuy yàkkamti loola kàddam daanu bu nu jëfee ko suñu kem kàttan kon bisu tey bi di sikrullaay te nu war cee jëkke joxe ay taranga loolu ñu ngi koy waajal depuis weer bañ diggee bis ba léegi jóg nañu sol suñu dàll àndandoo di taxaw bisab maam sëñ tubaab bi nga xamante ne ñu ngi koy maam Cheikh Ibrahima koy sant la yàlla suñu borom ak njabootam loolu nag ñun ñi ci war a jëkke joxe ñoo ngi ci waañ wi diirub ñaari fan muy dëmb ak tey ci la ñu dëmb ci lañu fanaan ba fii nu taxaw di wax ak yow noo ngi ci liggéeyam waajal teraanga yoo xamante ne dañ ko yóbbul sëñ Muntaxa mu jëbbal ko njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi loolu nag waajal nañ ci xeeti ñam yu bari yu waroo bu fekkee togg gi la wàccaayu moom na nga ko tàmbali démb ca midi ci xeet yi waajal lu mel ni soble waajal lu mel ni pombiteer waajal lu mel ni yamuy àndal ci bañu lañu fanaan di ko defar ci fànn yi ñu ko war a defaree yëpp bi ñu demee ba cinq heures demi quatre six heures moyen ñu tàmbali taal togg yi ci ay façon yu waroon yu fosanti ko ndax dinañ fi def xeet yoo xamante ne saafu Tuuba lañ koy tuddee am na lim bu yaatu buñ ci def am nañ fi def façon boo xamante ne tufe lañ koy tuddee am na lim bu yaatu buñ ci def boo xamante ne ay xar lañ koy defee lim bu yaatu buñ ci def nga xamal ne jëwriñ ji daal li mu wax mooy fas nañu yéene daal bu ñuy wàcceel sëñ Muntaxa lu bokkut ak ndekki yu bokkul ak añu boppam bi danañ ko wàcceel 313 mbana yoo xamante ne xeetu ndawal lay doon yu sant ko yu bokkul. loolu nag fii nu taxaw di waxee yow midi jot na waaye 313 bool yi boo génnee fi may waxee yow boo wëlbati di nga gis ne mat na ci fànn yoo xamante ne yu bokkul la loolu it firiwut na ci la ñuy yem. yeneen xeet yam war a mën a àndal moo xam lu ñuy naan la moo xam ci lu ñuy lu sedd la wala lu tàng wala yeneen xeeti gato wala pâtisserie loo xamante ne dina jëmmal bis bi sagal sëñ taxaa ci lii muy defal maam sëñ Touba ci jaarle ko ci maam Cheikh Ibra luñ ci mën ci sunu kem kàttan ñoo ngi koy def xeet yi ci bari waajal nañ ko ba dem na lii moo ci toppaat ñu àndandoo dem jébbal ko ko lum ñu ci def lool ñun ndëgëram rek la ñuy déglu. waaw liggéey bi laataa ñuy ñëw ci waa ñu démb di tàmbali liggéey def nañu ñoom réunion bu yaatu xamal leen leen liggéeyam Sëñ Tuubaa day ànd ak pëstéef ànd ak dogu ànd ak bëgg koo sellal sellal goo xamante ne yaa ngi mel ni gan gën a gën a fonk mbaa gan goo musta am te dootoo am gu ni muy Sëñ Tuubaa moom ngay teral moom ngay waajalal ba loolu jigéen ñi ñëw nañu ji ànd ko ak ñun boo xam ne néew néew am nañ fi juróomi section yoo xamante ne section bu ne am na féet luñ ko féetaleel tool na ci lu mu néew néew 30 mbana yi 50 yoo xamante ne li ma la waxoon togg yi la. loolu jigéen ñi lañ ko àndal ci waañ wi la ñu yendu démb ci la ñu fanaan ba fii ma taxaw di wax ak yow kenn ku dérangé wu génn jógee fii ci waañu dem fenn amut muy góor di jigéen góor ñu noonu lañ ko àndee ak ñoom. moom nun feek ñi sant leen sëñ Mountakha yàlla suñu borom tekki ñu seeni baas di dem. ñun noo ngi déglu a sëñ bi lu mu nu wax rek loolu la ñuy wéyee ni mu nu waxoon ne na ngeen jëkk indi seen li ngeen di waajal ñu def ko seen njogonal tàmbale ko liggéeyu sëñ Tuubaa bi bala noo mataat fii may waxee yow 30 minutes danañ chargé ñu kat ñetti camion ba ñeent ñu départ dem te leen ndigal luñ ci sësale dañ koy woyal ba ba ñuy wax ne ña liggéey bi mat loo xalaat ne dana bégal doomu aadama te yell na ci tàllu bi di ko defal moroomam am na barab yoo xamante ne café lañ fay liggéey am na barab yoo xamante ne du sedd fa ne muy collage yoo am na barab yoo xamante ne ga lañ fay defaree am na barab yoo xamante ne ndox mu sedd fa ne barab boo ci dem bu ne lañ koy waajal ma nga fa di lim bu yaatu boobu dañ koy boole ak xéewal yi diiru lu ñuy tàmbali ba ba ñuy wax ne tekki nañu ba sëñ bi ñaanal ñu la fa lépp ñun jàpp na ne ñun la war ñun ah bi tarxiya kon loolu ñoo ngi ciy déglu ndigalal sëñ bi jot nañ koy noo ngi cay ànd ak moom ci loolu ba ba ñuy wax ne tekki nañu baas yi ñu songaat beneen liggéey ñun moom ndigal day woyof tooy ju ñun bu doon bi nuy mbana day mel ni lim bu néew lay doon ci ñun ndax suñu yëgg bëgg ak suñu yéene suñu diggante ak sëñ Muntaxa lu lim bi rëy rëy nga jàpp ne lim la ci ñun day woyof tooy ju ñun te day mën a gaaw day mën a yomb